Mbàkke Balla salaatu ala yëpp am njariñ waaye nag da ci am koo xam ne mooy gi ci gën a gàtt waaye manis naa wax itam mooy salaatu ala nabi gi ci ëpp doole te li tax ma wax loolu muy yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxal boppam ne salaatu ala nabi googu képp koo xam ne day jàng nga ko benn yoon ci sab dund benn yoon la wax de benn benn laa wax nee na wax nga ko benn yoon ci sab dund yónnente bi nee na doo tàbbi sawar sa yaram aramal na sawara lepp lo meuna def ci bakkar suñu borom dana la ko jéggal li feeg yaa doon ub julit mu ne na képp koo xam ne saxal nga di ko jàng nee na ñëpp danañ la bëgg kenn du la bañ ku dul am naa feq ñëpp danañu doon say soppi maanaam lii di nit ku ñuul lii di nit ku weex ñëpp danañu bëgg la te salaatu ala nabi la goo xam ma jóob si la même dama jëlale ki jàng jëlale ak ki jàngul waye xale bi nga xamné da fay jàng wax ma jóob si la di jàng ma sax bu ko waxé du leer wallahi alhasim xale bi man nako jàng ndax yombu gumu yombu ak gattu gumu gàtt aajowul ngay ubbi téere aajowul sax bu la nexé nga diko bind waye buñ ko waxé bu sam xel nexé rek man nga ko dal di jàpp da li ci am solo moy képp ko xamné jàng nga ko dir bi koy jàng yàlla fay yebal malaika ne ko waajale wala soxna sële di jàng Salatu ala nabi gi demal diko faxasal ay bakaram ba keroog muy nopi lum yag yag rek bol tàyyi wax nañu maraka mo bu dikke ci salatu gu njëkk ga lay faxas ay bàkkaar ba mu set wicc ya cey top yep ay yiw la lay jor la lay soti kon la muy tegtale moy salatu ala nabi gogo amna solo waye rax ci doli benen bi ci top moy ku koy jange itam force da nga gudd fan bu sobe suñu borom salatu ala nabi gi ken du ko di gattu fan ku ko saxal faaw sam fan na gudd tayit mujub si la xam nga lu ci gëna neex muy xeeti feebaru mbas yi lu melni jabet lu melni sida euh, sida lañ koy tuddé yakana tur wi la xamul yalla buñ ko xam wala sida xeyna na wala lu melni num tuddati benen feebar bobu cancer yoy yëpp du la dal manam bépp feebar bo xam rek sa bakkan man na ci wala buñ ne bu la dalé du wër wala bo xam bu la dalé nit ñi di la daw lu melni ne ebola corella gi yëpp du la dal muy salatu ala nabi beneen ba ci gën a neexati mooy faaw nga am wërsëg doo soxlaal kenn dara kon soxna si doon sàkku ndimbal maa ngi ko koy joxaale na ko jël ku koy jàng diir bu gàtt da nga yëg ak dolleeku ci sa wërsëg ci sa bopp bu doon liggéey la da nga ciy yëg ak yokkute bu doon benn place danga am ñaar bu doon ñaar da am ñeent bu doon ñeent da nga am juróom-ñett lu mu fekkee sa alal rek dana ko yokk dana ko yokk ñaari yoon wala juróom-ñetti yoon moom salaatu ala nabi gi li ci gën a neex mooy li ma njëkk wax léegi muy ñëpp danañ la bëgg doo doo bëri noonu ñëpp danañu la sopp ci goo go ne yalla rek mo koy def ci ñom salatu ala nabi go xamna da ngay ni li wax lepp mom xala salatu gi warna gudd waye ñetti baat rek la comme que yonente bi neen ku ko wax ben yoon ci sa dund do tabbi sawar mbokk mi di ma deglu te moor ko ni mënu ko saxal maa koy yene yoon wi ma koy bëgg wax ñu andando ko ndax aljana ji nga xam yene na ko ko waxal sallal sallal la ala muhammadin jeex na takk sallal laahu ala muhammadin loolu dong la sallal laahu ala muhammadin loolu mooy salaatu ala nabi bu fekkee nag lim yi nga xam ne daañu ko ko def am na limub cent onze am na 313 muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett am na limub 111 am na mu 92 muy bi ci gën nag 92 am na limub 61 am na li limub 33 yooyu mooy lim yi am na li limub fukk ak benn fukk ak benn mooy bi ci gën a tuuti boo ma laajee ba ci gën a rëy dama naan la mooy 1111 junni ak téeméer ak fukk ak benn koo xam ne bëgg nga cee def ab lim mën ngaa jël 1111. wala nga jël 313 wala 111 wala 92 wala 61 wala 11 yi dal képp koo xam ne jël nga ko ta lim bu bëri beeg bu néew bi amu ci solo li ci am solo mooy saxal gi fexeel ba saxal ko bis ba yàlla sàkk lim ba nga jël nga def ko jël lim bu bëri ba noppi dem ba mu yàgg nga di ko wàññi ba mu yàgg nga di ko ba loolu jël lim bu tuuti saxal ko wala nga di ko yokk ndànk-ndànk moo tane kon kii door a tàmbali mën naa tàmbalee sax ci fukk ak benn moo gën sallallahu ala muhammadin kon soxna maam awa mbàkke ca ndindi salaatu ala nabi googu daal mooy gi ci gën a gàtt ëpp ci doole gën cee bëri njariñ kon soxna si